dal leen ak jàmm coowal faux billet giñ fi doon toppee waykat bi di Thione Ballago Seck tribunal bu Dakar waddal na verdict ba bàyyi Wally Ballago Seck gi yoon daan na ko ñetti ati yoo xamante ni juróom-ñetti weer yi rekk lay tëdd ci fàttali nag waykat bi ba ñu ko tegee woon loxo jotoon na tëdd lu toll ci juróom-ñeenti weer lii rek di firndeel ni juróom-ñetti weer yi nga xamante ni waroon na ko def ca prison daanaka tëdd na ko ba pare maanaam Thione Ballago Seck dootu delluwaat foofee ca prison bu Rebeuss li jëmoon ci wàllu escroquerie ak blanchissement d'argent bi nga xamante ni njëkkoon nañ di ko toppee yooyu yëpp yoon daf ko dal di annulé Thione Seck nag liñ ko toppee ba tëj ko ñetti ati moo di utilisation des faux billets de banque maanaam jëfandikoo xaalis boo xamante ni ay faux billets la lu jëm ci complice am bi di wuyoo ci turu Abdoulaye Jité moom yoon juróomi atti kaso yoo xamante ni yépp daf koy tëdd moom la ko yoon daan jamono ji nag ab mandat d'arrêt lañ émettre ngir teg ko loxo xibaar bi nag ñi ngi ko tataane ci suñuy naataangooy libération online lu jëmoon nag ci wàllum première instance bi ki nga xamante ni moo di juge correctionnel bi dafa déclaré moo di nilité dossier bi ndax kat juge bi moom dafa sukkandiku woon ci réglement numéro cinq bu union économique monétaire ouest africaine di e moi boobulee règlement nag li mu tëraloon moo di bu ñu interpellé ab doomu aadama laata ñu koy arrêté ay avocam dañoo war a teew mu nekk mbir boo xamante ni respecté wuñ woon ko ci interpellation coon balaago sekk ba tax juge correctionnel bi daal di neenaloon boobule dossier